maa ngi jërëjëf merci beaucoup. jërëjëf merci beaucoup ñu ngi leen nuyu yéen ñëpp maa ngi tooñ sànq monsieur le maire ne ko mu leen tabax mairie bu yànjee nii bi gën ci senegal yëpp ba pare amu leen micro bu nit ñi mën a waxee ñëpp dégg man nag yuuxu bi dina xaw a jafe ci man <laughs> eh, wala mu wax moom mu jottalil ma eh? en tout cas ñi ngi ñi ngi nuyoo ñi ñu fi fekk ñëpp kilifa yi ñu fi fekk yëpp les conseil municipaux. Eh, les travailleurs de la municipalité di nuyu ñi fi teew si ci ay sympathisants ak ay militants de nos partis respectifs di jël nuyoo bi teg ci loxo monsieur le maire mu nuyul ma waa Géejawaay yépp dañoo nekk ci visite yoo xam ne euh, daanaka du visite politique dafa fekk nag na fi ne nii jafe na ñu mun a tàqali suñu jëmm ak politique waaye su ma nee politique mooy politique u campagne mais politique ci lépp loo xam ne day jëm ci gestion de la cité dugg na ci cadre visite bi ñu koy dox ci cër yu bëree bëree bëri madame le maire Aminata Kanté ñu ngi lay nuyu. sama voisine assemblée nag ñoo bokkoon bureau assemblée <laughs> donc lépp loo xam ne day dugg ci cadre nu ñuy yore dëkk bi day dugg visite bi da ciy bokk ñu ñëw ci ci cadre lu ñu bokk ñun ñëpp moo tax balaa may door sama kàddu damay gërëm waa géejawaay dama leen di gërëm bu baax parce que waa géejawaay dañoo ñëwoon fii ñun ànd ak monsieur le maire Ahmed Aïdara ànd ak madame le maire Aminata Kanté ànd ak madame le maire Khadija Mahécor ñëw campagne biir Géejawaay ne dañoo bëgg waa Géejawaay wóoluñu dénkuñu du woon lu yomb nag ndax ñi ñu jàkkaarloo woon ñëpp xam nañ ni am nañu doole waa Géejawaay wóoluñu dénkuñu commune yooyu ma tudd waaye dénkuñu la ville de Géejawaay loolu confiance bu rëy rëy ci ñun te comme niñ koy waxee rek confiance moom lu ñuy mérité la te niñ koy mérité mooy ni ñuy taxawee ci biir commune bi naa ci dellu si waaye remercier waa Guédiawaye parce que juróomi weer teg tegu ci ñu ne ñu ngi dëgmal élection législative ñu dellu siwaat ne waa Guédiawaye dañoo bëgg ngeen wóoluñu ba li war a soqi ko Guédiawaye ci ay député muy ñaar ngeen dénk ñu leen muy intercoalition Yewwi ak Wàllu Géejawaay dellu siwaat féddali loolu daal ñuy dénk Géejawaay ci wàllu ay mais ay député kon ñun Géejawaay daf ñoo sagal Géejawaay deseeluñu ko deseeluñu dara ñun ñun ñoo war a delloo Géejawaay li nga xam ne dénk nañu ko moo tax ñu ñëw di dox doxu nemmeeku suñuy maire ñu koy def nag ci suñu tur anta ci turu réseau des élus locaux bi nga xam ne samp nañ ko mu dajale ay maire ay maire de commune d'arrondissement ay maire de ville ak ay président de conseil départementaux fas yéene nag liggéey mu war a doon benn laboratoire boo xam ne dañ ciy xalaat di ci tëgg ay programme ak ay ay gisin suñ ko ba paree nag boole lépp li nga xam ne mooy ay maires yi bokk réseau bi ñu def partage d'expérience dinaa ci ñëw léegi parce que am na lu ma jot waxtaan ak monsieur le maire ci bureau gannaaw gi ñu ñëw fi ci suñu tour en tant que maire de Ziguinchor muy une ville donte joxuñu ko statut de ville mais muy benn ci commune yu mag yi nekk ci senegal ndax commune boo xam ne nu mu tuuti tuuti làkk na trois cent mille personnes du commune bu ndaw ñu ñëw ci tur boobu it ndax jàpp nañ ni am na lu bari loo xam ne mairie yi war nañ ko mën a liggéey seen diggante ñoom te loolu explorer guñu ko niñ ko war a explorer dinaa ci dellu si tamit kon ñëw nañ fi ci tur yu bëree bëri bëri ñëw fekk fi waa waaye ñu yaatal ñu dalal ñu ndax démb lañ fi njëkk a ñëw jaare woon ci commune Golf Sud ñu teral ñu fa waxtaan fa waxtaan bu am solo tey ñu ñëw fii ci commune de ville bi fas yéene woon yegg nag ci madame le maire également parce que fépp fu maire yi yeew yi nekk bëgg nañ faa dem nemmeeku ci waaye même maire yi nga xam ne du ñu maire yeew yi te la ñuy def intéressé leen ñun ubbil nañ leen suñu bunt monsieur le maire dañ laa dénk une ville kon dénkuñu loolu tuuti de lu rëy lañ la dénk dañ laa dénk une ville boo xam ne gën saa néew war na mun a am trois cent mille wala quatre cent mille habitants cinq cent mille habitants donc cinq cent mille habitants lañ la dénk nga war a nekk seen édile doonte dañoo xaaj waaye ci ay commune d'arrondissement yoo xam ne bëri na liggéey boo xam ne foofu lañ koy defee waaye ñoom ñëpp ville bi moo leen féete moo leen jaboote ñu war a jublu ci liggéey def nañu tey at biñ ñu faleeg léegi ñun diggante janvier deux mille vingt deux ak léegi waaye diggante bi ñuy installé mairie ak léegi soreetul at mu am loo xam ne kenn ku ne ci ñun am na lu mu ci jot a def gëm naa ni yaa ngi def liggéey bu am solo am na lu ma ci xam am na lu ma ci gis def naa li ñu jàkkaarloo rek muy boulevard bi eh, jóge fii dem ba ci kaw firnde la ci li nga liggéey ci armeel ya firnde la ci ak yeneen ak yeneen yoo xam ne yéen a ngi koy def loolu xaw a daral suñu xel waaye nag mbir mi course de fond la du course de vitesse mandat bi juróomi at la damay wax toujours homme politique boo tollee ci août responsabilité amagul loo war a bàkkoo boo demee bañ jox la responsabilité amagoo la war a bàkkoo fi nga war a bàkkoo mooy boo demee ba responsabilité bi jeex ñu war a xayma population yëpp taxaw ne ñun suñu xol sedd na ci liggéey bi maire bi def wala suñu xol sedd na ci président li mu liggéey wala suñu xol sedd na ci député bi nu mu ñu taxawee woon assemblée nationale waaye tant que eggoo foofu amagul lu ñuy bàkkoo moo tax li ñuy ñaan toujours mooy mujj bu rafet kon départ bi rafet na ñu leen di gën a soññ ngeen continuer noonu yow ak sa conseil bi yëpp nag waaye li ma wax léegi ci partage d'expérience dafa am solo wax naa la ko sa bureau ñun du ñu accompagner ay nit rek ba ñu fal fal leen ñu ne pare nañ ci ñun ñëpp dañoo am responsabilité ci Ahmed Aïdara nu muy yoree Géejawaay ci madame Aminata Kanté nu muy yoree Sam Notaire ci keneen ak keneen nu mu yoree mairéem parce que wax nga ko léegi man de wër naa Sénégal ne diw doy na ma jox leen ko mairie du ma ne man maa tax ñu fal la waaye jàpp naa ni am na ñu ñoo xam ne bu ñuy sànnil kart dañ naan ah comme bëgg nañ Sonko nañ ko sànnil carte kon bu baaxee dinañ ci am responsabilité bu boneet dinañ ci cof te suñu mbébét ci réew mi yemul ci mairie moo tax am nañu obligation gannaaw bi ñu defee campagne ne fal leen maire defaat campagne ne fal leen député am nañu obligation ci di partager génn saa su ne li ñu jàpp ni mooy li gën du question dañoo ëpp kenn xam-xam nag waaye échange d'expérience dafa baax loolu waral suñuy tànk yu mel nii wax naa la ko sa bureau la ñuy xaar ci liggéey bëri na waaye man ma gëm ni lu toll ni ville de Guédiawaye gën saa gàtt budget bi waroon na egg quinze milliards te xam naa ni potentiel baa ngi fi man xam naa ni potentiel baa ngi fi loolu moom am naa ci xam-xam tuuti gëm naa ni ville de Guédiawaye su ma ñëwee nga naan ma budget bi un milliard quatre cent waaye report yi nañu egg deux milliards loolu jaaduwul monsieur le maire naam Guédiawaye du Dakar waaye dakaar mënul am cinquante trois milliards de budget Guédiawaye di am deux milliards de budget kon foofu am na liggéey buñ ci war a def. te dinañ ci joxante loxo partager expérience yi la jëm ci communication ak population yi la jëm ci stratégie li jëm ci collaboration avec administration yi war a liggéey loolu muy trésor muy impôt domaine am na loo xam ne man gëm naa ne buñ ko tegee ci géejawaay fii ak ñaari at boo eggul 15 milliards doo dootoo ko sori loolu lu te te loolu moo lay may capacité nga réaliser li nga bëgg parce que liñ population yi li ñuy xaar ci ñun donte ñoom ñu bari xamuñu lan mooy limitu mairie waaye am na lu fi ne waxoon bu doon dal na seen xel duñ ko changé bu doon am na bilan bu baax duñ ko changé ndax nag Ahmed noo jàmbaar jàmbaar jàmbaar jàmbaar xam nga ni ki nga doon jàmbaar look moo la ëpp moyen téeméer yoon foo dugal cent moom dugal na fa un million kon bu la population yi tànnee dafa fekk kontaanuñu woon ci bilan bi fi nekkoon kon population yi du amet moo ñu gën a moo ñu gën ci juddu wala moo fi dàq wala moo fi ëpp alal déedéet ñoom bilan lañu ñu bëgg bilan bi ci lan mooy ci infrastructure tali yi écoles yi bon yow sax ville nga yor lycée collège yi hôpitaux yi ak ci cadre de vie bi population yi ci loolu la ñuy nattee ah du ñu nattee ci leneen loolu nag pour nga def ko il faut nga am moyen yoo ko defee lu toll ni géejawaay lii ma wax nii pour nga def ko dina jafe nga def ko ak budget wu 2 milliards moo tax il faut ñu liggéey ci loolu balaa nga am naan ne fa loolu dafa am solo il faut ñu liggéey it ci gestion rationnelle des des communes fexe ba li commune bi di dégager mu war a dellu ci population yi muy investissement am solo ci budget yi waaye boo ñëwee ci budget commune wala budget ville ñu ne la quatre-vingt pour cent budget bi fonctionnement la loolu baaxul commune boobu warul mun a réaliser lu bëri loolu nag am na lu ñu ci mën a liggéey ci partage expérience man bi may egsi commune de Ziguinchor budget deux mille vingt-deux bi quatre-vingt-deux pour cent fonctionnement la woon. waaye budget bi góor góorgóorlu naa ba 67 pour cent yi mi ngi investissement léegi parce que mënuñu mënuñu jël xaalis bi ñu yor yépp mu doon ay dépenses politiques satisfaire clientèle politique bi dépense de prestige et cetera déedéet il faut que ñu delloo ko ci askan wi il faut que xaalis bi ñu fexe ba li ñu yor tuuti na bëri na. la ci ëpp ci xaalis bi c'est vrai fonctionnement mënul ñàkk parce que nu mu tuuti tuuti am na ñu fiy liggéey di fi xëy di gontu te suñ fi new lool mbir mi du dox donc ñooñu il faut ñu gérer leen mais loolu tam ñu fexe nuñ koy tënkee parce que dañ daan gis ni mairie yi dañuy ñoox ñoox ñoox ba mu fees del dina am ñoo xam ne sax liggéey ñu xëy ñu gontuñu ci mairie bi te weer wu ne ñu fay leen loolu bokk na ci lu ñu war a réfléchir xool tamit. Euh, li nga xam ne coopération la man loolu dafa daf daf ma yitteel coopération diggante les communes ñun fii yenn ville ngeen yor mu làq defe naa juróomi commune ñun Ziguinchor région bi région bi c'est sept kilomètres carrés lu rëy la am potentiel économique boo xam ne gaw ma ni am na feneen fu mu am ci Sénégal ñu ñu fexe ba nag région bi trente commune la trente communes yooyu ak ñetti conseil départementaux yi dañu taxaw li ñuy wax entente départementale entente départementale boobu moo ñu permettre ñu collaborer suñu diggante waaye dañoo bëgg am ay coopération yu ñuy am ak yeneen communes Sénégal yi bu ko defee nee nañu soo nee Casamance dañ naan mango baa ngi nëb foofu tol bi madd bi euh, salle d'arcasé yi ak yeneen ak yeneen potentiel bi kenn xamul nu mu toll mu am géej am dex donc tous les produits halieutiques muy jën bi yoxos bi paañ bi yeneen ak yeneen ak lépp nga fa diwtiir bi lem bi loo xalaat rek mi ngi foofu mais léeg-léeg problème mu écoulement problème mu distribution day tax mu yàqu ci àll bi tey dañoo bugg la ñu boole ñun ci ay communes ñu xool nu ñuy organiser wu te tënk ko ci li ñuy wax économie sociale et solidaire moo tax yéen da ngeen war a lancer programme boobu xaw ma ndax lancé ngeen ko. ndax lu am solo la ñun lancer nañ ko Ziguinchor ba fan yi dañu war a commencer les premiers financements parce que mairie de vingt deux mille vingt et un vingt et unième siècle dootul rek waaw fii laa nekk man daal njàng mi lañ ma wax ma gérer ko santé bi nangam nangam su loolu weesoo. lu xew socialement ma dem déedéet mairie dafa war a doon acteur de développement premier rôle mairie sax mooy acteur de développement donc économie sociale et solidaire am na solo ren yàlla def na àdduna ba mu daj ndakaaru la ñuy daje pour le forum mondial de l'économie sociale et solidaire au mois de juin lépp luy mairie boo xam ne dafa dépendre suñu réseau il faut ñu lancer des programmes d'économie sociale et solidaire xaalis bi ñuy distribuer ci wàllu politique ak yu demee noonu ñu dajale ko fexe ba dajale jeunes yi dajale femmes yi gars yi def ay regroupement ñu defal leen formation d'abord avec les couveuses d'entreprise mais après financer leen ñu liggéey parce que dañu naan nit koy may jën bis bu ne nga jàngal ko nu ñuy nappee moo ëpp solo boo fi nekkatul mu mën a nappal boppam foofu la ñu toll liggéey boobu nag la ñu commencé ci cadre réseau des élus locaux waaye liggéey boobu la ñu bëgg a def aussi de manière bilatérale parce que réseau des élus locaux lu yaatu la waaye de manière bilatérale tey diggante géejawaay nga xam ne bu njëkk ba sax dañ doon wax géejawaay cité dortoir la bëriwul ay entreprise amul zone industrielle et cetera et cetera waaye su dee loolu am na it ça veut dire que potentiel baa ngi fi parce que fu 500000 habitants daje marché la marché bu am solo la marché boobu nag naka lañ koy organiser li ma wax ni buñ ko defee femmes yi nekk fële Casamance jàmbaar lool yor seen i GIE yor seen i organisation di transformer de produits mais léeg-léeg ñu am problème écoulement femmes yi nekk fii madame le maire mun na organiser sam notaire kële organiser ko fële kële organiser ko fële. produit yi ñuy def fële suñ ko envoyé fii ñële produire ñiy distribuer ku nekk di ci dina ci gis boppam te noonu la ñuy lutter contre l'extrême pauvreté parce que premier objectif finance euh, économie sociale et solidaire mooy ndóol bu garaaw bi bu tar bi parce que dafa am pauvreté am mm. extrême pauvreté te extrême pauvreté am na fii am na fépp ci Sénégal noonu la dañu mën a góorgóorloo ba wàññi l'extrême pauvreté loolu moo tax tànk yi ñuy dox nii dama ne du tànku politique politicienne politique politicienne bu jotee ñun ñëpp xam nañ ku nekk fu muy jaare mbiram li ñu booleeg askan wi xam nañ ko waaye jamono liggéey bu jotee nañu jublu ci liggéey parce que ki la dénk tey bu juróomi at yi jeexee mu càmbar gis ni amoo bilan dootu la dénk de Sénégal yi léegi dañu am seen fulla topp ñu nit parce que moom a neex dañuy topp nit parce que am nañu yaakaar ci moom ci gis-gisam ci projet moo tax monsieur le maire en tout cas ñu ngi leen di gën a encourager di leen wax nag ni bokk na ci li nga xam ne mooy suñu message ci cadre réseau des la ko li nga xam ne moo tax sénégalais jëppi politiciens yi ngalawaay bu ñu dox ba ñu ne dégg nañ ci maire réseau des élus locaux maire Yewwi Askan Wi mooy ñu ne loxoom takk na ci suuf si wala loxoom loxoom takk na ci marché public yi wala loxoom takk na ci euh, budget bi ci finance bi loolu moom nañ ci góor góorgóorlu parce que askan wi dafa sonn yàgg am déception xam naa ni fii du ci am en tout cas am naa ci yaakaar mais ñu gën cee góorgóorlu di ñun rek de waaye même ñi ñu jiite ci administration bi nañ ci bàyyi xel di leen soññit ngeen fexe ba identifier patrimoine ville bi xam naa ni yéen a ngi ci am na lu ñu ci jot a waxtaan fexe ba mu dellu si ci loxo ville bi parce que li daan xew ci gestion communale yi dafa doy waar surtout ci wàllu suuf si nag caxat caxatee rek dagg séddoo dagg séddoo te su doon sax loo xam ne dañ koy jox ñoo xam ne nécessité la waaye ku nekk dagg am sa pàkk suuf am say courtier yu lay jaayal nga am ay millions yoo xam ne tegul ci yoon loolu monsieur le maire il faut ngeen taxaw ci te coow laa ngi commencé bari ci littoral bi waaye lu dul littoral bi sax fii bëri na ay ay pàq yoo xam ne yaa a gën a xam ne niñ ko géré woon ak niñ ko joxee du yoon kooku amul sentiment recensé leen ko delloo si leen ko ci loxo mairie bi mu jëriñ les populations de Guédiawaye loolu nag léeg-léeg maire bu xasee ba toog rek ni mu amee ci maire la amee ba ci président de la république Sénégal boo xasee ba toog rek gars yi wër la gars yi naan la non lii ay pratiques yu fi amoon la xam nga nii noonu nañu massa ci lii nañu def lii loolu mooy moo tax changement bi yéex léeg-léeg dañ la naan pouvoir dafa am réalité suñu buggee justifier caaxaan ni ñuy def dañu naan pouvoir dafa am réalité pouvoir réalité pouvoir mooy jëriñ askan wi tubaab yi war ñoo waruñ ñoo gën a bëgg seen bopp ñun ñu ngi wooteew ñun dañoo gëm ay diine ñoom sax wooteew ñu ñu bëri ci ñoom waaye am na loo xam ne président la république France ñemewu ko def maire de Paris ñemewu ko def pourquoi président de la république Sénégal ñeme ko def pourquoi maire maire bu dëkk sàngam ñeme ko def loolu ñun suñu génération dañu war a génne loolu définitivement bañ a subir benn chantage nag parce que dafa am loo xam ne day am ay nit dem ba jàpp ni moomeel la ay avantage acquis yenn saa yi soo buggee laal dara sax nit ñi jóg woo télé woo rajo yooxu da ngay gis koo xam ne lii du droit am ñu joxoon ko côté du droit am nga dem ba gis ni lii du droit am wala lii baaxul nga bugg koo jël ñu woon àdduna bi yëpp yooxu mel ni droit la suñu buggee réew mi dox il faut ñu teg ko ci yoon boole kook yërmande waaye teg ko ci yoon moo tax ñun en tout cas li ñuy sonn suñuy maire di ko soññ suñuy député di ko soññ képp koo xam ne ci ñun nga bokk ba ci ndaw ñi nga xam ne amuñu benn responsabilité te bokk ci ñun mooy jub ak jubal jiital intérêt askan wi liggéeyal askan wi ba ñu xam ne liggéeyal nañ ko parce que nag monsieur le maire bu dee ville de Guédiawaye jëndal na la oto bu rafet la ñu yaakaar ci yow ci nga liggéeyal leen moo tax ñu jëndal la ko dama la ko xam naa ne jëndaguñ ko mais dama ne bu ñu la ko jëndalee la ñu yaakaar ci yow nga liggéeyal leen moo tax ñu def ko ñu la joxee salaire la ñu yaakaar nga liggéeyal leen moo tax nga ñu jox la ko kon ñun ñëpp nañu góorlu gën a jàppante nag parce que nag objectif bi commencé gul de soppi Sénégal la ñu wax soppi réew mi. lii yëpp ay étape intermédiaire la waaye étape yu am solo la parce que bu ñu faqastaloo déjà ci premier ndénkaane ñu dénk mais kan moo ñuy wóolu ba ñu dénk ñu leneen moo tax fii laboratoire la kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant di féliciter monsieur le maire man euh, fin d'année bi bi ñu ma wonee bi ma ñu envoyé ay photo seen avenue bi dama foogoon Champs-Élysées lañ nekk ma ne saa jàmbaar la lii rek la population yi di xaar ci ñun compliqué wul vraiment di leen remercier di ko di ko di ko di wax di feddali it sama digganteeg moom ndax sama rakk la ci leneen lu bokkul ak politique eh, am taxawaay bu rafetit saa su ne ci ni ñuy jëflante kon di feddali fii nii au-delà de la politique am na lu ñu seq lu bari su koy def dina ma woo laaj ma ma wax ko sama xalaat te noonu laay defee ak moom it. kon kóllëre gu dëgër la ñu séq di ñaan yàlla mu saxal ko di leen félicité ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf